sëriñ alxaaji ñang bay fal mi yàlla may lool ci wàllum ñaan mooy ànd ak yéen ci xew xew kër gi yaa allah loo ci ñaan may la loo ci jéggalu mu ci la ngëneel yi tàbbee ci la xewal yokkoo shahr ramadan ramadan ya karim ramadan ya habib ramadan mu ëmb leen mu gën ci yaatalal sa xol sàkku yërmande ngelawaay bu ci mooy yàlla tuubal jéggalul dellu ci yàlla tey jii day solution amul de ay te boo xamante ne kenn yéen rek benn man ah, ay waay xanaa xaaraan ni xama ndogal tey jii de amul fenn foo xamante ne siin ak koor gi ni mu tàngi nii yaakaar naa du ma ci génn de laahu akbar aleykum salaam. waa Baye Diop ba. <laughs> waaw soxna na nga de maa ngi fi rek. yaa ngi si jàmm. alhamdulilah. waa na ñànku. ñànku <laughs> daa génnoon. daa génn. waaw ñànku day dox rek bu ñëwee. wax nga rek waaw. nga ne ko maam Penda ma la jox bi dégg nga. yaa ko jox jox añ bi waaw yaa ngi ci koor gi. <laughs> maa ngi ci koor gi waaw. koor gi métti na de maa ngi ci koor gi. ah fan yii daa xaw a de. wax yàlla baax na. jërëjëf. waa kay. yow de ñànku nga joxal ma ko dégg nga. ñànku sab xarit da de. waaw ñànku sama gaayen la. wax nga dëkk kay. waaw bu dikkee bu soobee la dara si jot incha allah jërëjëf. <laughs> ay waay ndeysaan astaxfirullah weeru koor laa nekk de ay waay ya seet suñu borom waaye nag doome raam yi nekk ci kër gi nga xamante ne si ah, du woor du woor te ku woor guddi gi moo daq xët nit ñi waaw nii li ab añama waay ay waay waaye naa fi bàyyi waaye <laughs> du ma lekk naa ko fi bàyyi du ma ko rek mënu ma tey ñàkk bañ a lekk waaye ndax kii nii wax dëgg yàlla bu fekkati añam bii ma nga may ñàkk fay añ boo xamante ne si ne guddi gi mooy dàq xëdd ñëpp ah moo dàq xëdd ñëpp ba ba pare añ bu mu ñëw mu bëgg koo lekk mënta ne doo di añ di woor di añ di xëdd xamu mënta ne ndox kat du fekkee deeg baay ba waay bismillah waay bismillah non <laughs> ma toog lii yaa xoolal eh, xool nga ma doyoo wala xool mu ko par xaw ma ma xaw ma tee xoolal jëli waaw waaw ba léegi maa ngi jooy kenn gisuma xanaa weeru ko boo wooree ba ngoon jot fomp sa gimiñ ba ma set nga nga bu ñu nee kafe nga ne kafe bu ne bisaab nga ne bisaab dam li tuubal jéggalul dellu ci yàlla lu mun ci nu baaxul ci tay mengook safaan ba nanga ko baay Ramadan ya karim Ramadan ya habib ya habib ana sama jabal bu ndaw yi waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw kii kii kii bi. ça va. sama xalit baa ngi nii de. maa ngi nii rek maa ngi si jàmm sax dégg naa fi nga naan jabar ji ndaw ñaa ngi ko yóbbu naan ngaa war a jabar de. waa kay faaw yi daa baax waaw naaj bu tàng bi koor gi yow ñëpp toog seen kër ngay dox ay ñàng yërëmal sa bopp. non daaw lu ma doon lijjanti fee rek si côté allé bi foofu noonu. Ah, ça va yaa ngi si jàmm maa ngi kuy ma añ bi laa doon indil. ah soo ndijaay ba laa fekk jox naa ko dégg nga. ah añ mu ngi si kër ga. waaw mu ngi si kër ga très bien merci ah, merci yow kontaan naa de jaajëf ok ok. yaa Ramadan mu ëmb leen mu gën ci weer yow na nga matal sama ndey ayay ñan danga xale naag moomu de bis ne cet bi bu sama des ma sama ndey waaw waaw waaw encore xoolaa xoolal pomme de terre bi jël toob la ci def fii ci wet bi xam nga ne lii waaw waaw waaw dox kat bi fekk ak baay ba loolu la yàlla dogal waaw waaw sénégalais lañu yow sama añ bi nga xamante ne maa ngi jox bi di ko di ko levé naan ñaata ñaag laa war a ñàkk naka yaa njaw yow nga kan war a jox añ ba kañ. xaaral ma expliqué taxawal ñang waaye taxaw bu yàgg. voilà waaw waaw foofu foofu añ bi ah, ndaw si bi mu ñëwee waxuma yow añ bi de man xam nga yaa gën a xam ne kër gi su ma bu ma leer yàqu moom dama ko laal de ba pare laal ma ko de. benn ba mu teer bu tuuti lay tax mi xool mi xool sama loxo waaw waaw fale nga waaw fam teel boobu moo lay yóbbu yow mën a xëy am yow tey yow eh faa jobor yow eh nang taxal nang nang faa jobor faa jobor yow xaaral nang yow yow yow yaasa bi sa tàgg laa koy jëmee léegi yaasa bi sa biir tàgg la jëm eh nang jur jur jur jur eh xoolal waaw waaw fas mbaam laa lay jàpp xaaral ma ci ko xaaral ma ci ko ñàkk xaaral ma ci ko yow bii daal daal seetlu yow dama lay laaj yow xaaral ma ci ko nangu nangu eh eh taxaw taxaw taxaw jóg kaay kaay kaay kaay ñaari pa ñaari pa tourné war ma ginnaaw waaw waaw gëmal gëmal laa wax gëmal laa wax lii du mbaam du mbaam jëlal eh, eh. fii jëpp jëlal fii jëpp Eh, kan mooy kan mooy jëli ceeb mu nekk jur gi sàlle bee ma ko sa sàlle bee bi eh, jur jox ma sa sàlle bee bi. sàlle bee ba ngi nii. yow kuur gi si biir sàlle la jëm yow. Ah, ma xalaat. Eh, jur la.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 ya Allah loo ci ñaan mu la loo ci jéggalu la yi tàbbee ci la xewal shahru ramadan ya karim ramadan ya habib Ramadan moo ëmb leen moo gën ci weer yow nga matal julli juróom yaatalal sa xol sàkku yërmande ngela waay bu ci mooy yàlla tuubal jégalul dalul ci yàlla lu mën ci lu baax ci tay mengoog safaan ba nanga ko baay